Yeah, it's not like it's cold. Yeah. Yes. No, no, no, no, no, okay. Yeah. Guy.

Tell them how you dress, now you tell us I'm a book. I'm on the way, my trying to get to rest. I have a drink, they got me tricks. Recipes, they is a very African. Like a money, like people, but just me the guy. Belle di moun mi fateling en depo Senegal Sorry di fes, bedi di taron go di kou Aeri de, yu di di neti wi waloy Kan do wote, Eternal bi nekkul yow rabbi na góore ni nga foogee nekkul duni do you know my King Black ndax lay fucking name damay soog a door lii ñu moom lay la tax fee la bonheur et la chance le sourire du man ak ñoom si iPhone kër fu nekk yaa ko photo ni wuleeg Malick comme ndax mos ñu si jàmm soxla ñu sa yërmande mu nekk maa ngi rëccu ma jot a dund ginnaaw wét naa at yi dem na gën a sàpp dañoo ngi rey ñu di toog ñu boon yi daw nekk si yoon

is done. Your body is go. Couple is done. Addition of the piano. Because I got giving us all my love. Paris a day. They are the best to take. Man, I should be. Sarah, I'm a little worried. With the pillow. All I want is I from the home city. We love. We represent. We love. We love. Who are you to force? Keep now with our eye, you don't make it a sound. May you disappear, I didn't know who you go. la ñuy daw nekk si yoon romaa la ñuy daw mën nga yàq sama der bi lay wala bu ma ko waxoon bu ma ko mas a gëm li ñu dund démb ak neexoon da ko wér tey ñu ne foofu ñu ne la dem ba ci biir bàmmeel doo xam xaw ci mu doon tàngaay di ba ñu wér day fi leere ndeke moo ca fekk fan leere bi moom lay jógee te njaru woon fii wala nga si kuuri dal kaw wate noonu jëf tiit naa wéet naa adi na ñëw di sant yàlla rey ñu ni tuxuñu bóot xale yi daw nekk si yoon dafa